براني الباغي من الأمراض وكب من أنكر باعترادي براني الباغي من الأمراض وكب من أنكر باعترادي له سكوري على حياتي عبدا خديما فاز بالآيات askuruhu zukra allazina sharibu min azbi wa lil jinaani xurribu xustu xayaatan laa turaa li xayri mucjizatan baanat li husni xayri yajuudu lil jawaadu bil jiyaadi wasulu li yakunu zan xiyaadi sëriñ bi sa njabootu bopp gi ñoo lay nuyu te di la ziare di la ci weer wi tedd wii nga xam ne mooy lépp sëriñ bi mooy tawfeex guñ suñu borom gataloo ci sëriñ bi siyaare si la ngir yeesalaat seen jaayante ak seen talibé la ci yeesal jaayante gi mooy ñaan sunu borom tabaaraka wa gën a guddal saw fan gën laa dool ak dëpp la kàttan te defal la ak ba li nga yéene liggéey sëriñ bi ci lislaam ak ci yoon wi ak njaboot gi ak talibé yi sunu borom defal la ci lu koy wépp njort Cheikh Abdoulaye Reda dafa waxoon sëriñ Tuubaa yi bis ci lépp lu mën a ut ci borom ci la ko moo tax nag ci sa barke ak ci sa ndimbal ak ci sa gàttandu ñoom ñu amoon genn tawféex goo xam ne sëriñ bi moo ko def si seen i xol jaarale ko Cheikh Abdou Lahad Seck mii moom sëriñ Saliou ca Thiès mu dikkoon fa Ndakaaru ginnaaw bi mu déggante sëñ Alioune Thioune mii di sa di di di sa sunu kilifa di sëriñ Moustapha Mbacké mii sa moom xam naa dama jox Cheikh Abdou mu leerale yéene jooju nga xam ne sëñ Tuubaa mu waxtaan ceeg mburit yi mu yëg na leen liggéey la boo xam ne liggéey sëriñ Tuubaa la liggéey Serigne Touba nag war a see seq benn jéego te dëgtaloo ko Serigne Touba ba mu joxe ci kàddoom loolu rek moo taxoon njaboot gi ñëw waaye nag tawfeex gi ci nekk nag mooy gàttanu gi ñu Serigne bi gàttanu ci weeru tedd wi nga xam ne xam nañ ne sa yéene jëpp ci nga ko jëmale ngir jëriñu jullit yi kon ñu déglu Cheikh Abdoul Ahad mu leeral liggéey boobu ñu ngi jégalu bisimilah. Serigne bi ñu ngi lay ziare bu baax Mbacke ñu ngi lay ziare di ci di ñaan suñu borom yàggal la fi lool te wéral la ndam li nga bëgg ci lislaam sama borom defal la ci lu ko weesoo njort xanaa di la yëgal rek Mbacke ni la amoon yéene joo xam dafa fees dell ci suñu xol mooy ànd mbooloo dem ziyaar ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàng fa xasida Serigne Touba xëy suba di ko jàng ba ngoon loole nag bañ ci amee eh, ba mu amee yëg-yëg booba boole bokk kook suñu mbokki taalibe yi ñoom ñëpp ñu rafetlu ko mbake ñu ni woon dañuy ñëw ba ci yow ndax sax ñu ci jéego benn jéego te ñëw ñëw ñu ba ci yow nga jox ñu ca ndigal ñaanal ñu ca ñu doog caa jéego Mbàkke loolu rek mooy mooy pas-pas bi alhamdulilah alhamdulilah boromam la doon jaamu di liggéeyal yonent bi alhamdulilah ne dañ ñooy jaamu suñu borom moo ñu moom waaye di liggéeyal sëriñ bi waaw mu ne loolu rek la mu ne loolu daje ngeen ci ak moom. sëñ bi rek tax leen a jóg. loolu ren laa ko tàmbali. mu ne loolu ren la ko tàmbali dafa amoon yéene joo xam ne. foofu ngeen toll yéen itam. kon loolu mu ne kon loolu mu am ngeen mu ren la ko tàmbali dafa amoon. kon li ko tàmbali daje na mu ne liggéey bi ngeen def ci loolu daje ngeen ci bëgg-bëggam ndax amoon na yéene at mu jot mu jël ñenn ñoo xam ne daf leen a jël te sëriñ bi rek tax mu yebal leen foofee far ngeen ñëw daje ci moom loolee te moom ren la ko tàmbali waaw waaw mu ne ginnaaw da nga ci fekk rek mu ne alhamdulilah rabbil nañ ci ànd dox rek jëm rek kanam insha allah mu ne góorgóorlu leen ci bu seen kaw nu gën a selle rek nu mu gën a pësteefu rek ngeen defe ko noonu bisimilah ah. waxtaan wi lettre bi lañ bind mu ne waxtaan wi ñu bind yëpp tënk wi lettre lettre lañ ko bàyyi tënk nii def ko ci insha allah lii seen addiye la a dajale jox la ko insha allah jërëjëf kon baax ngir barkeelu ko ci liggéey booba waaye ñooñee nag dafa xam ne des nañu waajal ci yëpp bari na lool sa délégation seen kàddu bu yëkkati ko lu lu sew sew te sori sori ñu mën koo dégg nga xam des di waajal ak ñoo xam dañuy dégg sëriñ bi ca kàllaama ga ba bu ñu yëkkatee xasida yi ñu mën ko ñu mën koo saraa bu ko koo dégg lu sax xam-xam kawe kawe ñu mën caa jariñu ak yóbbaale fa mbindum sëriñ bi diggante suñu borom. Hmm. moom moom moom moom doy na doy na ci mën a dolliku nag ci kaw. gën a am gën a xam waxatul alam bi gën a am ma xarit lu xool. Hmm. mooy tax mu gën a mën a génne. liggéey bu rëy boobu moo tax ñu gën ko génn ci saayir loolu dara waaye mën koo génn ci saayir loolu nag lay loolu loolu moom mbir la moo xam ne dama ko yéene woon ci ak ci taalib yi yëpp ci murid yëpp yëpp yëpp dama ko ci yéene woon dellu si waat nag jëlaat loxo daal di ko jéem a xam ko am ma xaar yu loxo di ko di ko di loolu duñu naa ko ci mboolam. mboolam xas liggéey gëdd xasaay yi de yoon naa ko dama eh, jar na nit jóg jàngi ba am xam-xam ba am xam-xam doora dellu si nag yem képp na ci xas day di ko liggéeyal sëñ <laughs> kon loolu daje nag li ngeen di loolu kon loolu moom na ngeen ko ci fonk lu mu yéex yéexee bu leen ci jëlul gaaw na am équipe boo boo xam ne ñooñu daañu a yëkkati xasida xam luxatul arabiya lu mu néew néew sax lu mu néew néew rek donte kenn la wala ñaar wala ñett ak bu mën a toll rek loolu liggéey boo xam ne war nañ koo jógal nag jóg dellu gannaaw nag rooñuwaat ko fas yéene ko yenn waaw lu am solo la ci ci xasaay bi noonu ma ko waxee rek dafay jar dafa jaroon kenn ku ne ku ne dem jàngi xam ba am xam-xam ba am xam-xam xam-xamu diine xam-xamu yàlla xam-xam xam-xam lépp noppi loolu dellu si sa mbir yëpp nga yemale ko jàng xas de liggéey la ko seen tubaab loolu rek lañ ko mën a joxe jërëjëf. bi àdduna bi yëpp di ko gis. jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñoo ngi nuyu bokki jullit yëpp. ñoo ngi fii ci kër sëriñ bi ci Daaru Minan ci kër gu mag gi àndoon fi ak sunuy jëwriñ di kuréel gu ñu wax Madhoun Nabil Mountakha ñu teew fi ci teewaayu sëriñ Moustapha Mbacke Ñaaxar. waaye tamit ànd ak ay kilifa ci jotaay bi ñoo ngi feggoo ak sëriñ Abdou Lahad mi nga xam ne kenn la ci mbooloo mi ginnaaw bi ñu siyaaree sëriñ bi leera ko yitte bi nga xam ne moo tax a jug mbooloo mi muy lëgël sëriñ bi waaye jaaree ko ci buntam di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam naa wàll woowu yi nag dañoo bëgg a jébbal kaddu gi sëriñ Abdou Lahad Seck ci turu kuréel bii di Madhoun mun taxaa ginaaw bi ñu siyaaree sëriñ bi. leeral ko liggéey bi ba sëriñ bi joxe ci ndigal ñu bëggoon nag mu leeral dëgg-dëgg liggéey boobu lan la ak lan moo ko tax a jóg ak ban taxawaay la ci murid di war a am kon ñun ñëpp ñu maa si déglu Cheikh Abdou Lahad Seck. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. mbokk yi ñoo ngi nuyu ñëpp di sant bu baax a baax a baax Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ndam li mu bëgg ci lislaam yàlla na ko ci suñu borom defal lu kawe njortam. Euh, lii ñu tax a jóg nag ñun waa Madou Nabiyil taxa mooy am pas-pas ak yéene ju fees dell ci suñu xol ngir yóbbu xasiday Serigne Touba yi ziyaara ji rasulillahi madinatul munawara jàngal ko fa xasida ndonte 24 heures lay doon. loola nag pas-pas boobu bu mu tàbbee ci suñuy xol yéene jooju tàbbi ci suñuy xol ñu fas yéene ko bokk ak suñu mbokki taalibe yi bokk ak suñuy sëriñ sëñ Mouhamadou Moustapha Mbacké ñaaxara ngi nii. Serigne Assane Bousso ngi nii Serigne Chérif Alwaliya ngi nii ci sama sama wet nekk koo xam ne moom it ca bitim réew dajale na tubaab ya nga xam ne yëpp tuub nañu defal leen bidaayatul xidma ñu fay sant Serigne Touba. Serigne Cheikh Diouf Baye la ngi nii jugee ba Màkka Jidda am na fa 39 ans yoo xam ni lépp liggéeyal Serigne Touba rek ko fa yóbboon dem na ba organiser fa ci bisub Arafa. di fa togg ay togg di fa def ay kafe ba mboolem taalibe yëpp di ko ci jàppale di ko ci fekk si. kon loola ñii bokk na ci ñi nga xam ni keno yi matxu nabiyil muntaxa lañu waaye li ñu tax a jóg mooy dañoo gis ci mbindum sëriñ Touba mu wax ni dafa am yéene lool ci dem makkatul karam waaye am na yéene lool it ci ziyaara ji rasulillahi sallallahu alayhi ñu gis ni ñenn ci mag ñi demaloon nañ ko fa lu mel ni tey Serigne Fallou Mbacké Serigne Mbacke Bousso maam Cheikh Anta ak ñeneen ci njaboot gi ñoo xam ne demaloon nañ fa Serigne Touba ñun taalibe yi nag ñu am paspas ngir ziar ji yonent bi defal ko Serigne Touba jàng fa ay xasida te loola nag pas-pas booba yàlla def na bi ñëwee wax ko Cheikh Mouhamadul Mountakha nee na bokk na ak yéenam bokk na ak pas-pasam ñoo gi ci biir yéenam kon sant nañu bu baax a baax a baax lii daal moo doon kàddu yu ci tënk asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu محمد بر وبهر لم يرى فيما مدى نذيره ولن يرى محمد صلى عليه بالسلام في آله وصحبه أسد السلام نفى توجه الأذان قبلي من يتوجه لأذى يقبلي xabawta kaanillaahi nii fi abadi wa kawnu liya bi xayri kabadi li kaana rabbi wa nabiyu kaana li bi ma maha aybi wa sirri saana li sëriñ bi dafa mel ni suñu Alioune Thioune mii eh, di sa soppe di sa taalibe waaye am ci yow cofeel lool ngir sëñ Tuubaa xam naa la loolu moom coobare sëriñ bi la waaye jotaay bi nii nii mu ñëwee day mel ni sax miinuñu ko <laughs> miinu ko ci ay jotaayam nga xam ne kon yitte ju yitteel la sëñ Abdou Lahad Seck mii jëruñ sëñ Saliou Touré ca Thiès moom la suñu borom am lu mu feeñal ci moom muy yéene ak pas-pasu lëgël sëriñ bi bi ko loolu dikkalee mu waxtaan ceeg mbokkum sëñ Moustapha Mbacke ñaaxar ak mbokk yi mu àndal yëpp waaye bi xalaat boobu ratee it ñoom seen xel dem ci sëñ Alioune bi mu ko ko jotalee mu ne ko loolu de yitte la te dafa mel ni liggéey sëñ Tuubaa bi dara jiituwu ko ci. mu ne ko kon demee noonu damaa sàkkoon bis boo xam ne damay ànd ak lenn ci bokk yi ñu dikk fa su ko defee ñu gaarale la jëmmi liggéey bi dëgg-dëgg keroog ca biir ba lañ daanaka fa lañ ñandu bi yàlla dogalee loolu am ñu wax ne yitt ju mel noonu mën su ko mën saa dox jëm ca te jotaluñu ko ku mel ni Cheikh Ahmadul Muntaxa bi fi Serigne Touba ba mu dégg ko ba joxe ci kàddam waaye itam mën su koo dox jëm ca te jotaluñu ko Cheikh Ahmadul Bachir bi nga xam ne moo yor kàddam di jëwrinam bi loolu amee nag ñoom seen bopp ñu ne ko nag dañoo bëggoon jotaay bi ñuy ci Cheikh Ahmadul Bachir ñu féetale la ko nga sàkkul loolu ca moom. bi ma joxee ndigal li ma jox sëriñ aboo Guèye mi sa moom moom it mu jox ci mu def ci yitte ju mat sëkk. mu ne kon noonu baax na bu ngeen bu jógee fi sëriñ bi kon mën ngeen ñëw fi sëriñ bi moom dana leen diglu dalal leen. liggéey boobee nag lañ demoon gaaral Cheikh Amadou Mountakha xam naa damay jox Cheikh Abdou Lahad Seck mii nga xam ne moom la sunu borom feeñalool ca moom moom mu mu mu dégtal la ko ak la ca sëriñ ba wax su ko defee nag nu nu nu déglu ci sëriñ bi. doon nañ wax na it sëñ sëñ Moustapha Mbacke ñaaxar wa ñu ne bu ko defee sëñ Moustapha Mbacke ñaaxar mii joxe ci ay kaddu incha allah waaw kon bisimilah mën ngaa leeral sëriñ bi loola. kon asalaamaaleykum. waaw sëriñ bi sëriñ bi ñoo ngi lay ziar bu baax. xanaa ci tënk rek. Eh, ni ko sëñ Ibrahima waxee rek daanaka tënk na ko sax. muy pas-pas ak yéene joo xam ni dafa feesoon dell ci suñu xol ngir bëgg a yóbbu mbooloo ca madinatul munawara ngir jàng fi ay xasida loola nag bi nga xamee ni fees na dell ci suñu xol nag ñu rogalaat ko ci mbooleem taalibe yi ñoom it ñu rafet lu ko ñuy nag bala ñu cee def lenn nañ ci am digalu sëriñ bi waaye nañ ñëw ba ci yow mi nga xam ne yaay yaay yaay yaay yaay lépp sëriñ bi waxtaan kook yow sàkkuwaat ci ñaan ci tënk daal loolu rek la Mbakke. Mhm. sëñ bi day mel liggéey boobu moom dafa waxoon ni yéeneem sax moo doon fexe ba waajal lu toll ci ñett téeméer ak fukk ñett ci ay bokki taalibe waaye nag fexe nag mu doon ñàng moo xam ne nag des koy waajal segg ko tàggat ci ñi koy seq. moo xam moo xam ñàngum ñàngum durus ak yëkkati ñoo waxoon nañ lu mel ni ñàngum kuréel ak ñàngum kenn waaye ñooña nag des leen di seet. waajal leen waajal leen ci ñoo xam seen xam-xam day màcc ci wàllu woowu ci wàllu ci wàllu baat yi surtout ci wàllu maxaarijul xuruuf xam euh, am am kàddu gu leer goo xam ne fu ñu ko waxee ku dégg arab ku ko dégg dana mën a xam li luñ jubloo wax waaye ñu wax na loolu sax du ca yam waaye da say waajale ay borom xam-xam yoo xam dinañ dégg làkk wax te xam seen i waxin te mën a wax ak ñoom nga xam ne boobaa loolu bu ñu ko jotalee ñoom dañ sa ko mën a dicté anam woo xam ne dinañ xam dëgg-dëgg sëriñ bi liggéeyal ba mu doon liggéeyal yonent sallallahu alayhi wasallam ak na ko doon na ko doon jotalee loolu dafa bokk ci mbir mi. léegi nag ñoom loolee nag biñ demee wax ko si Cheikh mun Mountakha mu xamal ne loolu dafa dugg ci biir yéeneem mu ne la man mii de yëg boobu dama ko am ba ji sax tàmbali woon naa ko ndax ren ji tànn naa ñooñu ñenn ñoo xam ne ci bokk yi dama leen yóbbu ngeen ci siyaare Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne kon san yi ngeen ñëw gaaral ma ko de kon demee nu dugg nit sama biir yéene ne nag euh, euh, li ma leen ci dolli mooy jàng xasida yi demoon na jar jar na dem jàngi ba am xam-xam ba ñëw nag ñëw sëgg ci xaside yi daan na kon bu boobaa nag ña koy war a def nan leen seet ñu ñu am maxaaju xuloo bu bu bu leer ba bu ñu ko waxee ñu mën koo dégg daan na nag bu ngeen ca jubloo euh, tàmbali bi nag moo xam kenn la wala ñaar waaye nag bu leen ko yàkkamti waaye nag xam ne maa ngi koy ànd ak waaw <laughs> waaw dafa ko yàkkamti mu mel ni kon dafa mel moom mën naa nekk mën naa nekk jeesum bi. xedof mën naa nekk jeesum. waaye da ngeen koy tàmbalee ci lu ngeen tànn rek. mu nekk tànneef. mu nekk tànn rek mu nekk tànneef. tey ba ca des it mooy. njàng njàngum yëkkati mi ñu bañ koo gaawtoo te jiite njàngum njàng kenn. ndax comme njàngum durus mi ngeen koy waxee ndax li tax loolu li ma ci jublu mooy comme ñene foofa am na ci ñoom xëy na loolu du seen aada te Cheikh du Fat dafa àndoon Cheikh Abdou Lahad ñu dem ci Senghor bi ñu àggee ak sëñ Modou Moustapha Mbacké Fallou ñu toog ci suuf sëñ Abdou Lahad sëñ Fall tere leen ko ne leen toog leen ci kaw ndax ñàkk ñàkk ay teggin xam ngeen mooy la ñu la ko déet mooy barab lu fa xew nga bëgg ko fa def kon loolu day mel am njàngale la ci lépp te ñoom dañoo xam àdduna te nuñ jàngalee noonu la kon foofu itam li ma ci gis rek mooy eh, am na foo ko suñ bind fu bëree bëri ci xaside yi yaakaar naa am na ci xaside goo xam ne suñ bi ne bi moo ko taalifee rek ci la waaye li ci له خطاب ويبيد من جهاد لي ولم يكن له كفوا أحد صلاة الذي في كل شهر وفي سفر حماني على ماهن مع الحبس والسفر